mais usure la usure la ñàkk man politique la parce que koo xam ne politique da ngay xam ne ne euh, sénégalais yi boo leen di woo da nga leen di woo ci li nga xam ne dañ koy pérenniser tous les jours mais boo leen wooyee ci loo xam ne ne c'est des actes ah yoo xam ne da nga koy poser du acte politique duñ ko mën a dem parce que ñun xel la ñuy demee boo ñëwaayee benn yoon neexaay bi génn bi dina la am mais boo beneen bi day soof loolu mooy indi këy na nga gis Blaise bi yëpp di tudde nii nit ñi di dox seen soxla fekk ma sama kalbaasu jigéen ñu baax ñi parce que en fait en réalité il faut kil apprenne à être des démocrates et des républicains poser des de poser des jalons yoo xam ne nit ñi dinañ ci mën a gis seen bopp mooy jalon yoo xam ne dafay dafay dafay dafay am réflexion nekk de façon intellectuelle lu ñu po euh, lu ñu teg parce que départ bi li Sonko woote woon moo doon moo doon euh, euh, di wax ni ñi ci programme di wax ci stratégie et consort noonu la démarré woon alors moo moo amoon toute administration admiration par rapport à la population maintenant on a vu que ne dafay gën di ëttal population bi daf leen gën di andil usure ay violence daf leen gën a di andil wax di leen gën a andil ay problème yoo xam ne ñoom xamuñu ko woon te Sénégal kaay ma wax la nag bëreet la mën bëreet mais après jàmm la bëgg parce que ay dee bu ci naree am après ay taal station et consort ñoom dañuy delluwaat ginnaaw